téléspectateurs de Lou'Bess TV comme ni ñu koy defee saa su nekk ci taaru woote bi ñu daal di nekkoon fi nga xamante ne moom moo di Cambérène gontu dem Ngor euh, démb ñu dem Yoff taataan li nga xamante ne moom la sang yi indi woon comme ay njàngat euh, ci li jëm si appel bi tey nag ñu daal di jël troisième jour bi nga xamante ne moom moo di yeewi yeewi bi nag en sang yi ñoo koy jël di ko jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen taalibe seen mbokku taalibe yi nga xamante ne ñëw nañ ngir jàppale leen ci li nga ne moom moo di seen liggéey rek troisième jour bi nga xamante ne moom moo di Yoff euh, cité BCEAO rek centre aéré nga xamante ne moo di Chérif Ibou Seyni Thiaw Laye mu nekk di ne moom moo di mbokku taalibeem yi ko seet si woon wante mu def leen lu spécial loo xamante ne raar na sax ñu di ko gis ci yeew yi moom dafa def table am atable def euh, li nga xamante ne moom moo di diine wante itam daal di woo jàngkat yi rek ñu daal di bégal li nga xamante ne moom moo di xolu jaam yàlla yi dañuy dugg si biir rek daal di taataan li nga xamante ne moom la ñuy andil wante itam ñu dékk micro bi mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fi ci yeew bi topp leen ñu. 的哎呀。 xamee ne jóge nañ ci Chérif Idrissa Laye tey ñu ngi fii nii ci kër magam bi ah, Chérif Ibou Seyni Thiaw Laye ñu teew ak ah, benn taalibeem xanaa rek ñu daal di koy laaj ana ah, ban jàngat lay am ci li nga xamante ne taxawaay bi nga xamante ne Chérif Ibou Seyni Laye am na ko gannaaw bi nga xamee ne baayam xàlloon na yoon bi jël yoon bi àll bi moom mu préféré jaar ci ay tànki baayam. waaw bismillahi rahmaani rahim ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp di rafetlu tamit euh, seen présence ci appel sunu liñ ciy wax maneew ñu wax daal liñ ci mën a wax bariwul parce que sëriñ Ibou Seyni Laay liñ ci mën a wax ci moom loo wax ba desal lu bari mooy que ni man mii bokk naa si ñi xam ne man moo ma defar bokk naa si ñi xam ne sëñ Ibou Seyni mii moo def ci man la nga xamante ni parce que man jàng naa ba à un certain niveau ma bàyyi samay jàng dem nekk di liggéey nekk ci wat di ko nekk su yàlla dogal ci ba ñoom ñëpp tey ma tiim leen tiim seen i bopp di leen liggéeyal macha allah tey bu ma demaatee ba concentré waat sama jàng ba tey ñu naan Libasse ingénieur ginnaaw yàlla jëmm ji si la bokk bokk na si ñoo xam dañu contribuer sama avenir kon donc dañ koy gërëm di ko sant di ko ñaanal taxawaay bi nga xam moom la waajuram amoon ci diine ji moom it mi ngi ci yoon bi te xam nañ ni tamit dina teeri te dina si dina ko réussir incha allah ah di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla def ko boole ko ci milliardaires yi rek ya nga xamante ni parce que li wékk ci ginnaawam dafa bari loolu daal laa am ci lu ma doon wax ci appel bi rafetlu tamit seen taxawaay ak taxawaayu presse bi yëpp ci appel bi ak képp nga xam ni ñëw nga nga contribuer ci appel bi de près ou de loin ñu ngi lay gërëm di la sant ah, loolu daal laa amoon ci li Seyni la Jawlaay ci këru diine yëpp nga xamante ne ñëpp la boole def leen benn yow na jàngat nga si am. waaw loolu moom liñ ci am jàngat mooy que ni jàngat bi ñoom dégg diine moo tax ñuy taxawee noonu parce que bu yàlla ne waxtasimu bi hablillahi jami'an ñoom kon xamoon nañ ni mbooloo moomu la. kon seen seen maam bu ñëwee woote ci diine ñoom ñu ñëw taxawaat ci loolu di ko dox kon day wane ni seen maam mooy rasoolulaay sallallahu alayhi wa sallam kon loolu permettre man mii tey. am na benn sëriñu murit bu may liggéeyal muy sëñ Cheikh bu sëñ Abdou Khadre tey bu ma ñëwee wax leen ko ñoom dañ naan ma boo fa demee melal ni si kër gi nga bokk parce que lépp bàyyi laa yekka njaboote kon donc rafetal na ko taxaw na ci taxawaayam rafet na te boo génnee si biti Ibou Seyni la ñu gën a xam sax que yi ci biir kon loolu day wane taxawaayam ci biir kër gi ci biir diine ji ci biir këru diine yi kon donc ñu ngi ko ciy gërëm loolu di ko ci ñaanal yàlla mu am ci continuité bu baax mu am ci réussite bu baax di ko si ñaanal daal bu baax a baax a baax. Hmm? waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waa fan waa Lou'Bess TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ba ngeen dem ba mu nekk télé bu mag a mag a mag a mag. ba tey rek ñi ngi teew fi ak ki nga xamante ne moo di soxna Ndiabas Laye Ndiabas Laye maa ngi bu baax a baax. ñu ngi leen di fay bu baax a baax. a lan mooy sa taxawaay fii nga xamante ne moom moo di ah, dooleel islam. dooleel islam yàlla def ñoo booleek Ibou Sini cawlaay Ibou Seyni Thiaw mu Serif Abdoulaye muy suñu wasila ñu bokk ci waañam yàlla boole ñoo nat ku baax àjjuma ba tey ci guddi fi lañ fanaan si rey nañ juróomi nag ñetti gëléem bokkul ak nag paylaa yi ñu doon toog Cambérène ñu ànd ceeg président daayira bi Fama njaay ànd ceeg ay mag maire Wute ak maire Mati Sall ak Adja Aïda Niang ànd ceeg waa Déen waa Kañak waa Caaroy waa Mbar Ndiaye ànd ceeg waa Cëddeem ak ñëpp pour ànd jàppale Ibou Seny Thiaw Laye ndax li naan dooleel islam du laayeen kase Tiijaan xaadir murit ñëpp a ngi ci ndax Ibou Seny Thiaw Laye amul ko bañ amul noon ñëpp a ko bañ. man ci lool sax laa bëggoon ñëw taxawaay bi nga xamante ne Chérif Ibou Seny Thiaw ngi ko am ak këru diine yëpp nga xamante ne képp koo tudd Chérif Ibou Seny Laye rek ñoom ñëpp seen xol day sedd seen xol day féex ndax coalition bi nga xamante ne am na ko ak ñoom yow ban jàngat nga si a doon ci baayam. Krista Baye ñu ni Serif Abdoulaye Alassane Sène ma cayu Codou Ndoye dakaa doonu baax doonante la mën naa ne bu defee rek wàcc na dakaa doonu ci baayam mu gën ka yaatal nag fu baayam taxawoon rek taxaw na fa dem na ba taxaw ci dëkk boo xam ne ñaara fay laayeen dawul dara ci ay da dawul dara ci murid dawul dara ci tijaan moom na nga doon jullit rek ku juli jullit sa ta bëgg ko rek da lay fekk di la teral yàlla may ko wér ak di ñaanal suñu mag ñi dëkk yi fu ne la ñuy jóge ñëw ci bés bi tanat lu daayira bi teg keesam mu tibb lu ko ëpp tegal le yal na ko yàlla may wér ak wérle loolu rek lañ koy ñaanal ak gudd fan yàlla may kon nag ci dëkku maamam bi yoof ay immeuble immeuble ba bu ñëwatee maintenant directement rek dugg ubbi suñuy bagage génnee kontaan nañ ci ñëpp kontaan ci yéen yàlla yokk seen bi ba leen di dégg na fu ñuy dégg télé yi ci télé yi ci kontaan nañ ci yéen ñaan yàlla teew bii nu teew fii si kër bi seen teew bu déwénee yal nañ fi teew ak yéen ak borom télé bi seen télé yal na yokk di ñaanal Baye Ablaye yal na yàlla beesal yéen mu dem yokk leeram di ñaanal sunu xarit général bi yal na fi yàgg te wér waaye di ñaanal Ibou Seyni Thiaw sunu xarit sunu soppe ku boole ñëpp di nit ku di ñaanal dooley lislaam yépp di ñaanal président yi ba si xale topp sa gannaaw di ñaanal nag waa ñu ubbi seeni caw bii ñu ñaan yàlla mu yàgg lool lool lool lool lool te sax waaye moom Alassane na fi yàgg rek mais yàlla na wér ak njabootam macha allah di ñaanal caaro yi gépp macha di ñaanal waa Cambérène ndax émission ni macha allah dañuy fanu gudd ñaan mu mucc Seydina Limaamu mooy maamam nag maamam rek moo oto aji boo daayee insiwal jinne ini rasulullahi aleykum Abdoulaye caw nag di baayam silmaxa jur macha allah doomi gër mi la doomi gër mi la maamam gër mi la kon macha allah Ibou Seyni Thiaw bu oote mu mel ni war naa ne mais yéen tamit ngeen ñëwee ci bés bi rafet na kontaan nañu sant nañu ko lool lool lool lool lool sant aji utame ak Ayda Ñang sant Caaroy géej gépp ak xale yii tout ñi jàppale ñëpp ak ñoom Fama Ndiaye ak yow ah kay tund jandeer déggoo ñu naa waawaala la fa nekkoon di ruyu jàmbaar Chérif ba yaa fa dem rungaleen jox ko Seydi baay Laay dafa sol daal lu baayam toppaat tànk ba baayam dafa toj dafa toj fu la nekkoon rek toj na ka kon Ibou Sène bu tojee tudd jandeer toj waala toj ndar macha allah toj région de Cap Vert nga xam ne ku nekk bëgg naa doon moom ma doom ju góor ji maa ngi koy ñaanal yàlla na yàgg yàlla na sax yàlla na ko cat lu ay teggi dugal ñu ci waañu nag tubaarkalla macha allah rey gëléem yi rey nag yi rey xar yi rey ganaar yi dara manqué woon maa ngi koy seedeel sama yaay yi lii ñuy ay ñi ay waa kañak lañ macha ñu taabal ni nga xam ne lii ñun lii ba nu doonee ay janq lañ ko gëjoon a gis di nu bëggal gis nga ne nu mel tey ñun ñëpp gis nga ne nu mel tey ah, waaw booy danoo bëggal ñu ñaan yàlla bëggal ka bégal leen appelu maamam bi lépp lu mu ci man bu déwénee yàlla na ci mën lu mu ko ëpp ci barke na tëdd sooba yàlla kontaan nañu lool waaw ba tey euh, ñu ngi fii nii fi nga xamante ne moom moo di dalu Chérif Ibou Seny Thiawlaye comme ni ma koy waxee saa su nekk nag derrière chaque grand homme il y a une grande dame tey nag ñu toog ak la grande dame mu di soxna Astulaahi xanaa mu jox ko kàddu gi rek daal koy nuyu waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax di leen ziar ñëpp yal na ko yàlla def yal leen ko yàlla defal defal ñu ko ci barke Baay Laay alayhi salaam. tey nag ñu ñëw fekk la fii sa wetu borom kër comme ni ma koy waxee saasu su nekk nga daal di taareel bés bi ak sa délégation ñu lay laaj ana ban jàngat ngay am si bés bi tey gannaaw bi nga xamante ne ah, ah, passé ngeen si appel bi di jàmm tey ñëw nekk bi bisu yeewu bi. waaw sant yàlla rek ñu ci duggee ci bisimilah rahmaani rahim di ci génn alhamdulilah rabil alamin ñu sant bu yàlla bu baax di gërëm sëriñ bi bu baax a baax. di feddali suñu cofeel ci moom rek ak suñu bi ci moom. gis nañ euh, sa sang bi daf bu baax a baax kóllëre euh, gi nga xamante ne sekk na ko ak euh, këru diine yëpp maanaam murit yeeg tijaan yeeg xaadir yeeg ñëpp loolu ban jàngat nga si am. ah waaw doomu sëriñ Ablaye kay boo melee nii rek wàcc sëriñ Ablaye ëttu kër diine yëpp amoon na fa chaise kon bu ñëwee tompaat tànk yooyu rek macha allah kenn du ko yedd daal. ndax baayam ni nekk woon sëriñ Ablaye amoon na chaise fépp amoon na chaise si murid yaag si tijaan yaag si xaadir yaag yëpp ba ca ba sax sëriñ ba amoon na fa place kon tànku baayam rek la topp yàlla na ko yàlla defal jaam. waaw foofu ay taaliba Seydina Limaamu Mahdi ñoo fa nekk. te nit boo leen bàyyee noonu rek dañuy sànku il faut ñu am ñoo xam ne dañ leen di delloo di leen wax yonent bàyyi laay bi mission bi du dakaar kese bi seeni laay mission bi papam daan dox ci àll beeg fépp ma nga ngaraaf ma nga waalo ma nga fépp fi ba sëriñ Ablaye daan teg tànkam rek ma nga fa di jàjjanti taaliba yi di gën a ànd ci yoonu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam. gis nañ sa taxawaay bu baax a baax en tant que soxna ban euh, dénkaane ngay jox soxna yi nga xamante ne ñoom ñoo toog ci seen ay wetu borom. waaw ah, waaw man avant tout man taalibe laa avant sama maam yi dañoo gàddaay si woon wuy si kon man balaa dara may nekk soxna taalibe Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam laa. taalibe sërif bu Seyni Thiaw laa soxnaam laa mais avant tout daal man taalibe laa gis nga ma damay takku di liggéey di defar ba mu baax pour gon gan yi kontaan taalibeem laa daal maa ngi jaaj soxna yëpp jabaru sëriñ yëpp ñu nekk taalibe avant tout ñi ñëw nekk taalibe bu leen gën a nekk ndax liggéey la rek te yàlla booy fay jàppale suñu borom kër yi bu baax a baax a baax loolu daal lañ ci jublu maa leen jaajëfal leen tamit bu baax a baax yal na yàgg yàggal seen télé bi mu dem ba nekk télé yu mag a mag baraaw ay TFM ak yëpp rek barke Baay la alayhi salaam ñu leen di bëgg bu baax a baax. ba tey rek ñu ngi ci dalu doole lislaam nga xamante ne dañu ñëw ci yeew bi fa yéene taataan li nga xamante ne moom moo di kaddu sëñ bi wante itam taataan euh, kaddu taalibe yi tey nag ma taxaw ak kenn koo xamante ne da di ko am taxawaay bu baax a baax ci wetu sëñ bi mën nañ ni sax c'est le Cheikhou Diop ah, ma koy nuyu bu baax a baax man nag daanaka si ñi ma dalal ci la bokk maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw soxna si maa ngi leen di fey bu baax a baax a baax a baax di rafetlu jotaay bi di wax ni comme ni mu ko waxee noonu aussi inventé wu ko kii bi muy nekk tout tànk lañ amoon nag moom nekkoon nag moom du koy encadré. bu yàlla dogalee nag mu am réussite ba war a mën a nekk ci benn média bay mun a waxtaan ak ñun ñi nga xam ne ay nijaayam la dañuy def lu sant bu baax sant yàlla bu baax bis nag ni ngeen ko gisee nii wax dëgg yàlla ñu ngi ci yeewi bi yeewi bi nag neew ci yekk yeewi boo xam ni ci daayira Ibou Seyni Thiaw la te daayira bi nag moom mooy responsable moral bi mais du turam lañ ko jox daayira bi daayira bi ko jox dooley lislaam maanaam dooley lislaam mooy maanaam mbooleem koo xam ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha la ci nga bokk looloo tax tey ñu dajaloo nii yeewi bi nekk bi su tey bu ngeen ko gisee nii sax ci organisation ak yaatalam bu ko neexoon mu ni sama yëf la naa ñëw yeewi nit ñi mais daa oo ñeneen taalibe yoo xam ni ay taalibeem lañ am xam-xam dëkk Cambérène mu oo leen ni leen kaay leen ngeen jàppale ma ci bis bi santale ma jaam yàlla yi santale ma daayira bi ñu waxtaan ak ñoom mun a yeewee ko ba naan yàlla may ñëwaat fanaan atum jàmm ak salaam ñu dellusiwaat ci jàmm feetewaat ko ci jàmm macha allah. su lan mooy sababu yeewu bi ana lan nga may tontu. waaw sababu yeewu bi mooy wax dëgg yàlla parfois da ngay gis ni tey par exemple dafa am ay jaam yàlla yoo xam ni e, comme ni nga ko xamee e, du woote Cambérène rek muy màggal muy leneen ak leneen a ci yem ay taalibe ñoo dajaloo ci ay kuréel kuréel yooyu tey ñoom ñooy dem dajaloo pour mu mën a taaral bés ba nga xam ne tey par exemple mooy bésu woote bi fii tamit aussi noonu la demee yàlla dafa dogal tey par ay daayira yi ñoo dajaloo ñoo xam ne nag dëkkuñ fi am na ñu dëkk Cambérène am na ñoo xam ne ci ëpp na ki tund jandeer bi lañ ne ak ñoo xam ne ñi nekk diggante Malika Yëmbal Kër Masaar ak yeneen ak yeneen ak ñeneen ñoo xam ne sax tudd ñu leen ñooñu tey dañ daan ñëw yendu ak ñun Cambérène waññeekuwaat ñëw yoof préparé ko te xam ngeen une activité ça se prépare pendant et après ñooñu tey bu ñu jógee Cambérène ci premier jour bi daw siwaat ñëw ci deuxième jour bi ñooy defar organisation bi toppatoo waañ bi toppatoo li ki des deuxième jour bi jot gan yëpp jox gurgur yi ñëw ci seen kanam de ce fait nag léegi dootuñu am temps wu sax toog ak sëriñ bi waxtaan ak moom yeew saafonteeg moom xamal ko nag li nga xam ni moom lañ gis moom lañ daj moo waroon moom lañ waroon améliorer moom lañ waroon par exemple amender looloo taxoon tey par exemple sang bi daal kon comme que demee na noonu saa buñ ñu pareetee nañ bàyyi ba ca ëllëg sa mu koy fàggul nag mu koy fàggul ni muy fagoo premier jour deuxième jour noonu lay fagoo troisième jour bi dagale ci ay xéewalam gis ngeen ko nii bernde yi ñoo toog waxtaan ak taalibe yi kaf ak ñoom ree ak ñoom won leen wax dëgg yàlla kontaan nekk ñoom gërëm leen nag ndax ku bàyyi këram bàyyi njabootam jël alalam indil la nekk ak yow ñetti fan buy dellu nag war nga koo wax jërëjëf loolu mooy sabab bi tey pour nit ñi tamit taalibe yi tamit duñ am jotoon toog ak sëriñ bi ndax ñaari fan yëpp dañuy liggéey pour jox jaam yàlla yi ñuy xewlu donc ñetteeli fan bi nga xam ne nag dina yomb te daggani dinañ wàññeeku ñu dajaloo ak moom waxtaan ak moom mu yeewi leen ñaanal leen yàlla may ñu jàmm bañ dellusiwaat ci déwén feetewaat ko ci jàmm macha allah taxawaay bi nga xamante ne Chérif Ibousseyni Thiaw Laye am na ko ci moom ak waa Tulu Jandeer bi nga xam dafa jaar jaasi ay tànki baayam loolu ban jàngat nga ci am en tànk que nit koo xamante ne yaa ngi côtoyé sëriñ bi waaw jàngat bi ma ci am man tey dafay nekk jàmbat bu sedd sama xol ndax li ñu nekk tout tànk sang bi man dafa am foo xam ne dañ fa jaar commencement sang bi yàlla dafa dogal bi ñu nekk tout tànk ngeen baal ma ci wax bi lañ commencé ànd ba yàlla dogal tey am na benn daayira boo xam ne tey mu ngi dox biir Cambérène ñu bëri sax yaakaar nañ ni daayira bi du daayiram mooy ahlulaay bi ngeen dégg Cambérène Ibou Seyni Sow moo ko moom du ma ni moo ko sanc mee moo ko moom ndax bañ koy def dañ koy def tey baayam sëñ Ablaye mi ngi doon dund bañ toog bañ koy utal tuut ba waññee kwaddu ba nañuy moom sëñ Ablaye moo nañu yéen man duma seen sëriñ Ibou Seyni ngeen maaseel jamono seen sama doom la kon jël leen ko mu nekk seen sëriñ looloo tax ñu nekk ak moom boobu ba nag maa ngi ànd ak moom tey nag li nga xamante pendant moom la taxawee tudd jendeer yéen xam ngeen ci dara Chérif Abdallah dafa amoon taxawaay ci li nga xamante par exemple mooy këru diine yi amoon taxawaay ci li nga xam ne mooy taalibe yi Ibou nag waññeekuwaat ñëw gis baayam nam daan def sëñ Ablaye amul fu taalibe nekk amul fu taalibe nekk Sénégal man loolu mun naa ko war fu taali lay nekk Sénégal Serif Abdoulaye même bu dee benn yoon toog na fa mbaa mu seeti la mbaa mu tantal la sang bi tamit comme que Serigne Abdoulaye moo ko jur moo màgg moom tamit soldat boobu mbooleem foo xam ni am na tey koo xam ni taalibe layen nga tey Ibou dem na fa seeti la nit ñi nag mën nañ xalaat ni da koy seeti pour ut lu mu am déedéet Ibou day dem ñàkk alalam ndax xam nga dëkk boo xam ne nga fay dem mu nekk àll ngeen baal ma ci wax ji mu nekk village boo xam ne peut-être ñetti néeg la ñeenti néeg la ñu juróomi nit lay am bala juróom benn nit mu wàññeeku teew fa mooy yóbbu alalam def otoom essence ba mu fees yóbbu ay berndeem pare ba pare nag ci xéewal yi ko yàlla war sëgale armoire am buy dem da koy wuqi mboolem tëni bu fa nekk sañse yi mu la te xam ngeen sañse bi nag sëñ bi daa mën a sañse daa taaru mën a sañse sañse yooyu tey lay jël def ko ci valise am bu yeggee mag ña nekk dëkk bépp kenn ku ci ne mu jël complet jox la kon xam nga ne ko utiwul dara day dem jaayante ji xam ni baayam moo ko fi waxoon maamam moo ko tracé woon mu waa mu màgg nag soldat lu way jur ya fàtte ne def comme nga way jur doon def loolu rek moo ko ci yóbbu tonton Cheikhouna ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax boo amee kàddu ndenkaane booy jox jaam yi askan wi lan lay doon waaw jërëjëf man tamit dama leen di sant bu baax yéen ginnaaw yi biñ sant yàlla julli ci yonent bi di leen di sant di ñaan seen uh, média bi yàlla na ko suñu borom bi boole ci média yi gën a kawe ay ndaw ngeen fi ngeen teg seen tànk foofu la tey nit ñi dañoo war a bàyyi xalaat ni damay jàng ba toog rek dem dugg ci bureau war nañ mun a weesu foofu entrepreneuriat dafa baax te son nom comme son leen di nit ki da war a am ne koo xamante ne par exemple da ngay xalaat di xalaat di xellu ba nga xam ne par exemple li nga bëgg tey yàlla mun na la ko yombalal média bii nag dañu ñaan suñu borom bi yàlla na ko boole ci média yi gën a kawe message bi ñuy laajte nag mooy message boo xamante ne par exemple muy ndaw yëpp adduna bi yëpp nañ denk ci loo xamante ne par exemple mooy jàng ak éducation jàng xam nga tey par exemple nit ñi dañuy confondre jàng ak éducation xam nga jàng mi tey mooy li nga xamante ne par exemple moom moom moo war a mun a nekk ci li ñuy def instruction maanaam dem école dem école loolu la ñuy wax mooy jàng mi éducation bi nag mooy li nga xamante ne moom la am ci biir kër yi moom la am ci mbedd mi loolu il gay gars yi def distinction bi ndax man nit ki mun nga am nga mun nga am instruction te doo jàng mun nga am instruction donc éducation nag mooy li nga xamante ne par moom ngay boole ci li nga jàng ci instruction li nga boole ci mbedd mi li nga boole ci kër ya nga boole ci association yi ak ñeneen ñi ngay nekkal loolu moo lay tàggat ba nga war a taxawaay boobu may ñaan rek xale yëpp. nañ dellu seen xel ci àdduna xam ni lu dul jàmm jàmm ko gën lu dul njëriñ njëriñ a ko gën lu dul jàngit xam-xam moo ko gën donc maintenant ne yàlla ñu yàlla boole ñu fekke waat ay déwén yu bëri ñaanal leen jàmm ak salaam sutura ak teraanga jërë ngeen jëf léegi mbër gi dem ci kër gi yàlla def. yàlla yàlla bàyyi la fi. amiin yaa rabbi. yow sa pap sama sëriñ. maa la ko wax Seyna. am du doon yàlla nga guddal fan. bëgg lu baax. ku am ful la nga yàlla yàlla ak sama bàyyi la fi. yéen ñëpp yàlla ngeen gudd fi. Ousseynou mm-hmm. soo deful li nga war a def. nga def la nga war a def wàccal kër bàyyi amu na ñu daje ma egg si sama kër ñu moom moo fi yónnee lii man dama am benn feebar bu ma daal te feebar bi gis naa mi ngi yokk rek du wér feebaru wér wér la xaw dama gaaw. wér man man bu na ci piqûre rek wér. baax na de ah ak a baax boo may baax baax ah, na soo moom mooy baax baax man nag. maam Seydou ma toog rek gis ma traversé ma xool nii moom. maa la ko wax ak Chérif la. te gis naa ne wàcce na lu ay xéwal yu bëri ci kër yu bëri. yàlla yàlla fay. sama xol seet ñi ma doon teg ci loxo président tekk ci loxo laalaay. Babra Ba Gueye ni nga ko jërëjëf. waaw waaw na de waaw waaw. yàlla na Siteu nga wax jërëjëf. Siteu jërëjëf. Abdou Salam ma ca waay ba nañ Fallou Galas sama copain dara Galas ak waa sécurité yi nan leen wax jërëjëf démb bu du woon ak démb laa gis sëriñ bu tëb miir daw ma sonn ah? dama jël dara ji jukka ca la leen maa ngi ñëw jaati miir bële ma ko xale bi ne ko gaaral ma dem point des Almadies tëdd foofu lakk fa ay coof yu bëri jaaxal yaa ngi wax parce que boobu mayee naa ba poos yi jeex mais bi fàttu ne tël ak sàppe sama waaj ak seen ak sa njaboot gii maam Seydou am naa sécurité bu doy léeg-léeg benn nit naan sécurité jarul Abdou Khadre Jeylaani benn taalibe ni ko nii ni nga am sa gëléem bi mun nga maa ngi bàyyi ci bi dégg naa ko yàlla mun nga yeew ko da nga yàlla da nga yeew ba pare jamono moo laaj sécurité parce que imam day ne ci jàkk ci waaraat gëm leen yàlla jaamu leen yàlla ñu naan est-ce que ngeen génn ñu sàcc balaa kii si kon waaraate bi jëriñ ñu dara am de Ousseynou loolu kon maa ngi gërëm ñoom Aline Sall ñoom ñëpp ak galas bi leen jiite di gërëm assistance bi yëpp Fama Ndiaye ak sa njaboot maa ngi leen di gërëm démb seen fii di ngeen fi def rafet na yàlla nii fa yàlla leen fay may mujjee ak sama doom yee toog gan la fi woon bi waa ji waxee sa waaye génn def vidéo di tontu ci alxuraan. ba tey vidéo bi dama gëj sa waaye da nga bañ danaa ji naaq sol jiitalul mer di wax lu ko neex yàlla yàlla guddal seen fan man daal raat amatuma lu ma fiy wax loolu ñaan cub ñu dem. maa ngi seedeel mbooloo bi mooy maa ngi seedeel mbooloo bi sama yaay yi toog ah naroon naa demee leen de. waaw ah, gërëm leen gërëm leen Alassane Ah, eh. a submersa non sé xam naa woon sax aywa a submersa a submersa waaw waaw première dame asu jërëjëf mën a joxe ceeb ya ya xam nga baax jërëjëf ak nga bëgg bàyyi suñu moom asu seen rek dama asu mersa soo yoree njaboot da nga yaatu dund da ngay yaatu gannaaw yàlla yàlla fay yàlla yàlla yokk sa xéwal may ñaanal sa yaay ju baax ji far njuba moo ma téye man samay am na moo ma ne nit téye di jël ay millions di ma ko jox far njuba ñi ko yoreel bor yëpp mun ko fayoon gaa yi tabax cee taas am na koo ma san dugg mu rocc jox la yàlla yàlla fay waa gi nii yëpp mën a tubaab yàlla yàlla fay leen nabu caw waaw. Dabo merci. waaye première dame merci mu ngi toog. li ma jékkee ne ma nabu dañ dafa nekkaat sama doom ñaari yoon Cheikh Mbacke daf ma oo ni ma yow laa di seetlu sama yoon ñëw ci maa ngi dëkk fi mu ne faaleetuma dama ko war téléphone mu ne ma ne ko ah waaw jërëjëf. barke di baawu laay. non dama ko ma woo ci heure bi si man sa borom newu fi parce que comme que comme que benn boo ko yaakaar nga bokk léegi waaye bu kii réew la. man dama ànd ak moom. waaw ah, baax na. benn bëgg ci kanam na ku ma ko def. waaw man daal bu ma def dara. garaaf laa dëkk ci kulli am naa lu ma mën de baax ah. na bu merci ani jam mun sama ginnaaw premier daam mu ngi moom moom suñu xarit la suñu soppe yàlla yàlla guddal sa yàlla yàlla jàpp yàlla yàlla sàmm ba maa ngi gërëm ma bu rek waaw kii ak libaas bi bi njoon di wax meeru Kayar dafa yónni dama la ñaari hectare lan mun ma doowut benn ingénieur mu andi ma plan nga andi ma ko léegi moo bi ma waxee loolu ma ne ko maa loolu àll naan soxla naa la su ma gisee yàlla yàlla guddal si fan xamante woon fii Abdou Mbaye àjjuma bu jot mu ñëwal Serigne Ablaye Dara ji muy àjjuma dina gudd fan te dina yokk maanaam. te def na fi lu ne. yàlla ko yàlla fay. amiin sama xol sedd na. maa ngi jégalu ku fi toog yàlla nga gudd fan ku fi toog yàlla nga gudd fan ku amuloon xaalis yàlla nga am xaalis yàlla yàlla sàmmul Pape Doudou Makhtar yàlla daf yàlla bàyyi njabootu bàyyi lay gi yàlla daf yàlla bàyyi ku ma ci bëgg ak man ku ci gis maam Seydi defoo nga ni ma def naa fekk nga defoo nga Pamba yi naa fekk nga defoo nga ñaari yi naa fekk nga ni nga may nuyoo nuyoo leen noonu am de Amadou Fall jàmbaar xat jàll caw boobu ci doom seen ay première bi ñoo la génne alalam teg ci kaw moom ak laalaay yàlla yàlla dolli si ko sa ceebu bay laa yéen ki togg mooy coow. am seen alhamdulilah yàlla ñëpp fekk dama. bu mën a toog xaar reer nga toog xaar reer ma yeewi njaboot gi asalaamaaleykum. ay tabax a tàllal a yi seen ñaan amiin